أباخت للبتقى قصور لقيصر خواتف البشرى للولاد تطول شيخ سيدي الحاج مالك نانا ألا عظموا ليل الولادة خطبة إذا لم يكن نحو الحرام عدول وقصات سبقت سبقت تثبي عمل قاض القصاة ففار ما ذما وبساحب خاتم قاتم الأنبياء ربحونا قتامي أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله mbokki jullit mbokki taalibe mbokki pas-pas yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di leen balu àq di leen bal di leen yëgal xew-xew bu mag bi nga xam ne dafa war a am fii ci Guédiawaye ñu gën ko jàpp ci commune d'arrondissement bu Sam Notaire ci vingt 24 yi muy xew-xewu euh, diine xew-xewu a cheikh te xew-xewu waa kër euh, Seydi El Hadji Malick muy conférence annuel bi nga xam ne moom la muxlisiina wal muxlisaati yi di tëral fii ci Géejawaay tey ñu jàpp ko fii ci Sam Notaire ah muy bés boo xam ne ñu ngi toll ci cinquième édition bi muy euh, euh, bés bi nga xam ne tamit ah, sunu sëriñ sunu wasila sëriñ maam Ousmane si Abdou moo koy taxawee at bu ne ah di si teewaale ak eh, Chérif Ibrahim Haydara Tijani ñoom ñaar ñoom ñooy taxawee bés boobu ñu ci woo ñëpp nag di si jiital ki nga xam ne moom la yàlla def mu jiite dëkk bi eh, muy eh, monsieur Alioune Sall di le maire de la ville de Guédiawaye di si woo ku ñuy wax monsieur Racine Talla di maire Wakhinane Nimzatt di si woo euh, le député maire ay satu Diaw Sow Diawara bu Golf Sud di woo di si woo tamit euh, Aminata Kanté bu Sam Notaire di ci bañ a fàtte ku ñuy wax euh, monsieur Beydi Sey di maireu Njaareem Limaamu lay ak di monsieur Beydi Ba di maireu commune d'arrondissement bu Médina Gounass ak municipalité bu Médina Gounass yëpp maa ngi leen ciy woo di bañ a fàtte tamit ah, ki ñuy wax madame Sall di responsable politique nekk euh, ci Sam Notaire ak euh, Serigne Abdoul Aziz Tall bokk ci famille ah, Serigne Mountakha Daha Tall bu Louga ñu ngi ko ci woo moom it di ci woo association Sapp baax bi nga xam ne moo nekk euh, ci biir kër ga foofu ci kër maam Abdou ah ñu ciy lim ki ñuy wax Ibrahima Diop di woo daahira Tidiane bi nga xam ne moo nekk Nestlé ñu ci lim Cheikh Ahmed Tidiane Kane ak euh, Serigne Babacar ñaa ak euh, Abdoul Aziz Diawara ñu ci bañ a fàtte tamit ah, sunu mbokk ñaseen yi di euh, Cheikh Abdoul Aziz Ndiaye yor faydu Tidiane bu Medina Gounass ak fédération euh, des daayira yi nga xam ne dañoo tënku ci sëriñ maam si Sy baax ñoo ñëpp ñu ngi leen ci woo ci bés bi nga xam ne euh, daayira muxlisina wal muxlisaati bu géejaway gën ñu gën ko jàpp bu notaire di ko di ko taxawee le 8 septembre 2018 fii ci wetu euh, terminus 24 yi incha allah léegi nag dañuy dugal ñi nga xam ne ñoom la ñu euh, jox bés bi di leen di leen ci rendre hommage muy sunu ñaari yaay sunu papa ak sunu yaay ji nga xam ne ñoo nekkoon sunu bàyyu daara ak sunu yaayu daara amoon pastif torop ci sunu daayira bi yàlla def euh, édition bi fekku leen fi ñu ne dañ leen ci rendre hommage kenn ki di El Hadj Omar Ndiaye keneen ki di sunu yaay euh, Borsalaam léegi xam naa dañuy bàyyi euh, ki nga xam ne moo fi teewal famille euh, soxna Borsalaam mu dugal yenn kàddu. asalaamaaleykum mbooloo mi kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur di la ziar ñuy dellu di sant yàlla bu wér ndax bis bii nga xamante ni dañ koo jël tuddee ko aji Borsalaam. muy ndey daara di ndey jirim yi daayira bii nga xamante ni tey jii ñuy def cinquième édition yàlla dogal ni teewewu ko te ma amoon pastif lool ci biir daayira bi may ko ci bépp doomu aadama boo xamante ni wala rëm nga seqoon naag yow dara ci àdduna na nga teewe ci bis bi muy le 8 septembre bis bi sunu bis la ñoo ko moom ndax aji borsolaam bis buñ ko ko tuddee ñun jabootam ñoo moom bis boobu ñoo war a xëy suba teel takku taxaw wane ni bis bi suñu bis la te ñi ngi ñaan yàlla na nañu yàlla may kàttan ak wérgun ci defee sunu lu kawe suñu njort ñuy lancer message ci biir Sam Notaire ci biir commune d'arrondissement bi yëpp ci biir association yi nga xamante ni daan dafa def ay activités yéen ñëpp maa ngi leen koy lancer message di leen xamal ni bis bi ñuy sàkku di ko préparer muy le 8 septembre ñu koy defee fii ci terminus 24 bisu aji borsalaam la bis boobu nag sunu bis la ñun ñoo ko moom ma ci am sañ-sañ di ci woo astawaalo di ci woo ajaratu farfal coordinatrice des femmes di ci woo bépp nit koo xamante ne man responsable des femmes am naa yow activité nga xam ne bis bi kin ko tuddee sama ndey la sama genn wàll sama lépp la comme ni may amee sama bis ngeen ciy teew loolu laa bëgg ngeen jàppalee ma ci bis bi ndax bis bi ñor na ma lool ñor na ma lool aji boox sa nag lii ngeen ko defal rëy na trop ci moom yàlla na ko fekk ci HLM àjjana yi mu tëdd di nelaw mais rëy na trop ci moom kontaan nañ sunu xol sedd na yàlla na ci yàlla kawe sunu njort maa ngi jégalu wasalaam. jërëjëf euh, soxna ndey Mboup li nga wax euh, firnde la ndaxte sunu yaay jooju di euh, soxna Borsalaam moom lim ñu defal lépp mun mënuñu ko wax ci benn tàkkusaan waaye daal yàlla moo xam di defar yàlla nañ ko yàlla defar loo xam ne sot na ab njortam léegi nag ah, du ñu fàtte di wax ni bés bi bés boo xam ne la dañ koo jagaleel ñoo xam ne ñu rëy la si ñun suñ ne ñu rëy la si ñun nag moom mooy ñi nga xam ne ñoo taxawoo woon daayere bi ah, jëmmal ko yàlla def ah, xat-xati àddina wala tukki tax mënatuñoo euh, teewee daayira bi wala ñu si euh, wala ñu si indi yi nga xam ne moom la daayira laaj waaye seen xalaat seen seen am-am yëpp ñu ngi koy def ci daayira bi ñu ne nag ñooñu la ñuy delloo njukkal pare ne leen bés bi muy ñi nga xam ne moo ñooy membre d'honneur euh, daayira bi parrain ñoom ñooy doon parrain wu bés bi ñu si lim nag ki nga xam ne mooy le président d'honneur di monsieur docteur Amadou Sall ah moom mooy moom moo nekk président d'honneur u ah, daayira bi ah bu ñu demee marraines yi tamit dañuy tudd ñi nga xam ne ñooy groupement sopp na bi di suñuy yaay ñi nga xam ne chaque année ñoom la ñu doon jox ñoom la doon jox marraine marrainage bi ren tamit ñu ne duñ ko dindi ndaxte seen i taxawaay ci daayira bi tamit ñu ñëpp gis nañ ko ñu ne ñooñu dañ leen di bàyyee post marrainage bi waaye di si dolli kiñ naan Adja Ami Mbeng ñi nga di koo xam ne tamit bi mu ñëwee ci daayira bi di ñu jàppale bu baax ci daayira bi kooku tamit ñu ne dañ ko boole ci kii bi cëraleeku ko waaw du ñu fàtte nag ñi nga xam ne ñooy euh, ku mel ne secrétaire général bi xam naa moom la ñuy bàyyi mu dugg ci euh, programme bi. ni muy waaleykum salaam wa rahmatullah Seydina Pamba ñu ngi lay ziar bu baax di rafetlu kàddu fi jug yëpp xanaa di fàttali rek di wax si programme bi. gannaaw ba ñu sant yàlla julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si ndigalu xalif général di Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour daayira Muxlisina wa Muxlisaat bu Turaa bu notaire ñuy daayira soppee Maam Ousmane si bu Alaaji Abdou Aziz Dabakh ñu ngi leen di yëgal benn tàkkusaan bu ñuy def fii si Tata 24 di si Géejawaay muy commune Sam ñu ngi leen koy yëgal di tudd daayira yi nga xam ne ñëpp ñu ngi si gox bi ñu ngi leen di yëgal programme boobu ñu ngi euh, programme ñu ngi ko jàpp le 8 septembre muy samedi le 8 septembre 2018 di sàkku teewaayu daayira ñëpp di wax programme bi incha allah suñu xëyee suñu xëyee 9h ba midi wàcc alxuraan lañu ciy def ñaanal ñi nga xam ni ñoo nekkoon suñu membre nekkoon si daayira bi ñaanal leen ñëpp yàlla xaare leen àjjana suuf seet seen kaw suñu Sénégal gi yàlla na fi jàmm sax si barke Seydina su ñu demee ba 16h incha allah nañ amal mise en place muy 4 heures nañu amal mise en place bi démarrage programme bi 17 heures la incha allah animation group soppe Daba bu notaire muy ñoom Xaasim Cheikhou Sall muy Seydina Aline muy abu Thilo ñoom ñëpp daal mooy groupe soppe Dabaax ñu leen koy yëgal di leen xamal nag programme boobu seen programme la ñu ngi woo ñëpp modérateur bi Abdou Aziz Ñing moo koy def ak euh, Oustaz Basir Diouf conférencier bi nag Serigne Ibrahima Aïdara ak Tidiane moom moo koy def si tewaayu sunu sëriñ muy maam Ousmane si balaaji Abdou Aziz baax di leen xamal nag looloo fi nekk comme programme thème bi nag dinañ waxtaan si jaar-jaaru maam Abdou Aziz baax moom la ñu war a waxtaanee moom mooy thème thème saan bi incha allah comme bis boobu kon bisu maam Abdou la le 14 septembre boobu mooy anniversaire maam Abdou ñun le 8 septembre incha allah moom lañu ñu amal tàkkusaan bi ñu ngi si woo ñëpp di jaajëfal ñëpp di balaax ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. ñu ngi gërëm di sant euh, alaaji Ousmane Xuma di secrétaire généralu daayira bi li nga wax yëpp di si programme bi leer na di wax mbokk yi ak xarit yeeg am di jàmm ni yëpp ne ku déggul sa tur rek xamal ne euh, xel mooy fattu waaye xol bi yéen ñëpp yéen a ngi ci ñu leen di woo yéen ñëpp ci bés bi di xam di leen xamal ne bés bi seeni bés la xam naa nag dañuy jéem dañuy dugal ki nga xam ne moo fi toogal famille El Hadj Oumar Ndiaye ah, di wax ci turu kilifa yi nga xam ne ñoo fa nekk kenn ki di ah, sunu mag sunu xarit Papa Alioune Ndiaye ak ah, sunu mag Ndey Faatu Ndiaye mi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay doom yu mag nekk ci kër gi di bokk si njabootu El umar Oumar Ndiaye di ku ñuy wax Kër. Euh, Mbaaw moom mooy euh, def intro euh, bi. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen nuy yéen ñëpp di leen ziar di leen baalu àq di wax tamit ci baatu famille El Omar Ndiaye bu Géejawaay notaire di woo sunu bépp mbokk di woo famille Ndiaye yépp ci bis bi nga xam ne. waa daayiratul muxlisina wal muxlisat 3 bu notaire bu maam Ousmane si mu Seydi El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh ñoo koy taxawee fii ci vingt 24 Géejawaay notaire di sàqu seen teewaay yéen ñëpp ci bés bi woo ñu ngi woo képp ko sant Njaay ci fam ci di gërëm tamit waa daayira bi ci cër bi ñu le sunu baay El Hadj Omar Ndiaye di leen ci jaajëfal tamit di am contentement bu baax di ñaan bés bi yàlla nañ sunu borom subhanahu wa yóbbu ci bismillahi rahmaani rahim ñu eggale ko ci alhamdulilahi rabbi alamin di woon ñëpp le 8 septembre incha allah fi ci terminus 24 asalaamaaleykum wa rahmatullah a ah, kon mbokk yi ñoo ngi wax képp koy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah noo ngi lay xaar ci bis bi ci teewaayu sunu papa sunu sëriñ sunu wasila Chérif Ibrahima Aydara At-Tijaani ak sang bu teer tedd ba mu maam Ousmane si bu Cheikh Alhaaji Abdou Aziz Sy Malick bu Cheikh Seydi Alhaaji Malick képp ku dégg lii rek noo ngi xaar ci bis ba incha allahu taala yéen ñëpp waa géejawaay nag rawatina nag waa géejawaay yéen ñëpp noo ngi leen di xaar incha allahu taala jërë ngeen jëf ba bis ba incha allahu taala su fekkoon sëriñ si danoo wurusu man damay wax ni ma wala fege samay nga waaw ni leen yàlla na buuru yàlla dolli nga ci Abdul Aziz dolli waate ma lii di ci fa yaa rabbi sallim alal mustafa ñu gëm ay ay waxam tek ci roy ay jafa